pour voter. Le 24, Inch'Allah, le 25 anniversaire du président de la République du Sénégal, Diomaye Faye. ah kontaan naa si yéen. yàlla na yàlla fay heure bu ñu bougé gis gars yi taxaw. vraiment détermination bi ngeen am. macha allah tàcculee seen bopp bu baax a baax a baax. il est 3h41 du matin fii nga xamante ne moom moo di Nioro du Rip capitale du Saloum Nioro a ngi nii ñu ngi tata mimi mimi mimi mi ngi noonu 3h42 du matin en plein mois de Ramadan ci weeru koor fii si Nioro du Rip Nioro capitalu Saloum Nioro moo nekk nii à trois heures du matin presque quatre heures xale yi ànd ak détermination taxaw ànd ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye asalaamaaleykum mbokki coalition Diomaye président ana ñu waxoon su ko teree feeñ mooy Sonko Nioro mooy Jomaay vive la victoire population bu Nioro ñu ngi leen di jaajëfal 17 heures ba léegi yéen a ngi toog kenn dawul te kenn fayut leen waa boor bee nee na lañ fi bàyyeekoo joxe ay xuri Le Sénégal a besoin du changement et nous espérons avoir ce changement à travers la coalition Diomaye Président. Monsieur Bassirou Diomaye Faye le futur président de la République ñoo ràññee nañu allons renverser le pouvoir de Dibou Mod Ba et de Moustapha Ba ici le 24 mars 2024 gis naa léegi mu jàpp yëngal dóor si suuf leen bu leen baalee dañ koy ñafal ñafal vive le président Diomaye ñu ngi gërëm toutes les quinze communes et les responsables monsieur le président campagne bi yàggul fi ñu le bilan sur les quinze communes on a fait les et on a sillonné beaucoup de villages et dans les coins les plus reculés de Nioro et nous espérons avoir la victoire et Inch'Allah au soir du 24 mars 2024 la coalition triomphera ici à Nioro pour la première fois jërë ngeen jëf assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nous remercions tous les partis alliés avaient de nous, de nous informer que le coordonnateur de PASTEF du département est entre de la police. Chers patriotes, avant sortir Nioro, nous allons aller là pour le faire sortir. Il ne va pas dormir là-bas. il n'est pas criminel. Il est dit Nioro. Personne ne peut l'intimider. Nous ne reculerons jamais devant l'identité parce que nous sommes des hommes. Et attention. duñ ko nangu rek duñ ko nangu rek kon nag prenons vos responsabilités jëlee leen carte d'identité yi teel leen dem voté ji happy voté ndaw bi jubilé wasalaamu aleykum ñu jox tata Mimi asalaamaaleykum mbokki Nioro genn Sonko mooy Diomaye monsieur le candidat Bassirou Diomaye Faye ñu ngi lay dalal fii ci Saloum dugg si nga Saloum une terre de refus fii mooy kër Maba Diakhou Ba fii ay bañkat rek a fi mës a ne kon ñi nga xam ne depuis ce matin ñu ngi attaqué suñu caravane yi ñu ngi naan leen watawat watawat ñun jàmm la ñu bëgg parce que bëgguñu lu xajamal suñu victoire waaye fulla ak fayda dinañ leen ko wan ñuy wax nag les forces de défense de sécurité ñu arrêté leen. ñi nga xam ne xam nañ ne perte nañ ba noppi parce que lañ daan gis mooy parti au pouvoir di def démonstration waaye parti au mooy sànni xeer loolu mooy la défaite est consacrée la défaite est consacrée waa gaañi ana Amadou Ba heure bi ay nelaw parce que mag l'avantage d'avoir un candidat jeune day campagne ba quatre heures le quart noonu la nar a Sénégal pendant noonu la nar a Sénégal avec l'énergie dont on a besoin on a besoin de l'énergie de notre jeunesse de l'énergie de nos femmes mais également des adultes et des personnes âgées kon li nga xam ne moo ci war am fii muy déjjati ñi fi ne déjjati déjjati kanni fële indi fii la coalition Diomaye président ñu fal Diomaye président parce que Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye kon nag cher candidat ñu ngi naan la bisimil la yaa ngi dugg ci Saloum Saloum la ñeenteel ba di waañ wa waañ wa buuru Saloum kon nag yow fan lañ la buuru Saloum